waaw salaamaaleykum mbokki taalibe ñu leen di nuyu bu baax di leen siyaar man nag may Abdoulaye Gueye di secrétaire général kuréel du safar pour Touba Cité Senghor di ñaanal sëñ Mountakha yàgg lool te ànd ak euh, di ñaanal suñu jëwriñ muy Cheikh moom it mu yàgg fi loolu te wér di sant bu baax ñi nga xam ne ñu ngi fi teew nekk ci liggéey bi euh, tarkala suñu yaay yi suñu papa yi suñuy rak suñuy morom waaw lii nag mooy bernde kuréel du safar ñu koy def at mu jot maanaam bu màggal gi defee juróomi fan dañ koy tàmbale ba buñ ne ginnaaw suba la màggal dañuy bernde ñetti fan ren nag muy sixième édition bi nga xamante ne nii moom la ñuy taxawal yàlla def nag at yi yëpp suñu borom bi ñu kàttanal moom mi yor kàttan jaarale ko ci Serigne Touba ñu koy defal la mu waxoon ni bis bi bu ñëwee bu ko ci kenn xeebal ginaar bu ci kenn naw gëléem yàlla dogal it ñuy taalibe Serigne Touba jël ndigal loolu rek di ko jëfee di ñaan yàlla ndigal loolu noonu ñu tegu ci ba keroog ñuy sàngoo suuf dañuy bernde nag bernde yoo xam te ni la lu jëf xeeb ko lu ñu rey ay nag sax xeeb ko bu ñu lépp luy lépp luy xeetu bernde dañ koy def ñu ngi rey ay ginaar ñu ngi lootal ay ginaar ren cent 350 ginaar def nañ ko fi indi nañ tamit ñeenti nag xeetu caagri yeeg boisson yeeg yooyu yëpp mënuñu lim daal te lépp nag du suñu dooleel ñun mënuñu lépp Serigne Touba moo ñu dooleel mu doon nit loo xam ne maanaam du dooley benn nit wala ñaar nit dooley mbooloo la mbooloo moo xam ne déggoo Sédar Senghor la Sédar Senghor a déggoo mën naa ne sax du Sédar Senghor moo déggoo Cees a déggoo ndax bari nañu ñoo xamante ni bokk nañ ci te dëkkuñu Cité Senghor kon du Cité Senghor rek mooy def safar bi Cees a koy def macha allah ñëpp di ci jàpp euh, ñuy gën wit di tàllal loxo mbokk taalibe yi ñuy ñëw di ci jàpp ndax initiative la boo xam ne nii gën du pour ñun ñun léeg-léeg sax ñu togg ba pare te duñ ci xewlu dañ koy jël jox ko jaam yi nga xamante ne nii ndeysaan yàlla day dogal ñu jógee Mbuur wala ci yeneen dëkk dakaaru Dakar Ndiaye ñëw ba fii wippewoo ay ñam yu ñu war a xewloo wala ndox mi ñu war a naan walla xeetu yu sedd yu ñu war di jëfandikoo ñu jël ko jox leen ko te yàlla tax ndax nii la ko sëriñ bi bëggee maanaam bernde safar ca 18 ba lañuy ñuy commencé ba ca première ba kon amuñu lu dul lii ñun li mooy suñu yitte yàlla dogal na nag macha allah ren mu gën a fawxa ñu ko doon séntoo mu gën a fawxa loolu ñu sant Serigne Touba bu baax a baax a baax moom mi ñu kattanal di ñu dooleel ba at mu jot rek mu gàcceel at ma nga xamante ne nii moo weesu waaw ñu ciy sant bu baax di sant ñi nga xamante ne nii ñëpp ñoo ci jàpp wax dëgg yàlla ñëpp du ma lim kenn nag waaye ñëpp jàpp nañ ci Sëriñ Senghor jàpp nañ ci macha allah déggoo ñëpp ñëw taxaw tarkala daal macha allah kontaan nañ wax dëgg yàlla ñu ngi sant bu baax di leen gërëm yéen ñi nga xamante ne tamit yéen at mu jot ñëw taxaw euh, di gëstu suñu suñu suñu liggéey ñu leen sant bu baax di leen gërëm jërëjëf. bon asalaamaaleykum maa ngi ziar ñëpp di jox di nuyu ñëpp di jox kenn ku nekk wàccuwaayam man la Soxna Yandou Ba bokk kuréel 18 safar Touba Cité Senghor nekk kenn ci jëwriñ ci soxna yi. waa mel na ni ñun bu màggal gi jubsee safar gi dinañ ci amal chaque jour semaine boo xamante ni dañuy def ay bernde. dinañ premier jour bi ñu def suñu wàcce kaamil togg ay reer jox ñi nga xam ni commencé nañoo dem deuxième jour bi dinañ xëy defar suñu ay sandwich jox ko ñi nga xamante ni ñoo jëm Touba tey sonn lool ci yoon bi joxe ay añ comme noonu joxe ay reer aussi. mel na ni ren mooy suñu sixième édition su ma juumul waa liñ naan nag loo gis tàmbali ba benn lay doon ci benn la ñu tàmbalee bi ñu tàmbalee. booy xool beñe la ñu dem bay rey nag ba ñu tëral ñeenti nag am 300 ginaar defar ay sandwich defar aussi ay caakiri yëpp si ñuy joxe lay bokk.